mbokk internet Sans comme ni ngeen ko gisee en direct euh, fii euh, ci ki nga xamante ni mooy xablu Serigne Babacar si moom la ñu janoon nii moom la ñu jàkkaarloon nii Serigne Mansour Sy Djamil mi ngi noonu euh, moom mi ngi noonu tamit di di doom ci kër gi di sët ci kër gi waaye tamit di politicien di député président Macky Sall mi ngi noonu di génn mu war a génn war a dugg ci oto bi nga xamante ni moom moo nekk nii gis ngeen oto bi Bachir oto bii ngeen gis ni euh, ci la président Macky Sall war a génn daal di dem ndax dafay ziaraat euh, yeneen xablu yi en tout cas dugg na ci euh, xablu ki nga xamante ni mooy El Hadji Malick jóge fa daal di dugg ci xablu Serigne baabakat si ñu ngi noonu dinañ fàttali nag visite bi nag waxtaan bi yaatu na trop moo ki nga xamante ni mooy Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne ban gis-gis nga am ci ñëw Macky Sall waaw Macky ñëwam yoon la mu ñëw Tiwaawan ndax fii mooy Tiwaawan rawatina mu ñëw ci réew bu tedd bii nga xam ne fii mooy réew du seexal xalifa sëñ Babacar Si ki nga xam ni gannaaw Maodo rek moom moo toog si xalifa bi toog ci 36 ans marqué ci lu mu ci marqué kon Macky Sall bu ñëwee fii war na fi ñëw ndax kii mooy abuna abou bakirin wa in kaana fil xabri radina fii sayan ila axiri dëxri moom nag Serigne Cheikh Tidiane si waxoon kii tey moom moo toog si xalifi papaam la matal ko sëkk nañ kon Macky Sall ñëwoon fii dafa dafa dafa doon rafet bu ñëw ci waawoon waaw jërëjëf. xanaa mbégte kontaan lool di siyaare Macky Sall ñëw fii Tiwaawan yoon la mu ñëw soxla nañ ko fi lool ñu ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla yàlla yokk ko ba ca kanam. noonu Amadou Ba moom moo nekk noonu Antoine Diome également mi ngi noonu Amadou Ba moom moo nekk noonu di génn voilà. Antoine Diome également mu ngi noonu Bassirou euh, génn gis ngeen président Macky Sall mi ngi noonu di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñoo fi nekk comme ni ngeen gisee mu def grand bu bu weex mi ngi noonu président Macky Sall ngi euh, voilà parce dugg na ci ci oto bi xam naa nag du ñàkk Abdoulaye Daouda Diallo ngi noonu gis ngeen. ah macha allah di ci kontaan bu baax ci ko ñëw ci dëkk Maam Alaaji Si bi nga xam ne ba may def la Mawlaaye boobu ak mat taaloon ay mat taaloon waaw bon dañuy kontaan rek di ñaanal yal na yàlla yokk taxawaay bi ci barke Seydina Mohamed yal nañu fi yaakaar daje ay ay waaw di ko rafetlu rek boo xam ni daf na lam naan def rek comme ni mu koy defee saa ne rek moo xam màggal gi passé wala gàmm gi waaw parce que. c'est normal mu ñëw parce que ñun Sénégal amuñu leen lu lii waaw maanaam amuñu leen lu suñu kër kilifa diine yi rawatina si ma bokk nii di kër Seydi Hadji Malick di ñaan yàlla yàlla fay ñu ko te ñu si barkeem waaw di wax nag comme président ñëw na fi ñëw na fi mu war a ñëw aussi waaw mais di ñaan rek saa su ne jàmm moom lañ ñaan te moom lañ xam man li ma ko ñaan dama part man personne mooy na bàyyi libéré ñëpp ñëpp nekkaat si jàmm Sénégal dox. xanaa non man su ma far maa maa ngi ko téye rek man. la man maa ngi ko téye sama biir la ñuy wax. mais ça veut dire que jàmm dafa baax. waaw jàmm dafa baax ci lépp parce que tey jii gannaaw yàlla bu jàmm amoon tey jii lii am. yow xamu foo jigee man séparé keneen séparé mais comme li ñuy ñaan rek mooy ça veut dire que mooy mu lépp bàyyi lépp jàmm gën ñaar jàmm ci réew mi. macha allah Macky moom yàlla moo nu ko bëgg lool surtout jigéen ñi kon dañ ko ñaan yàlla rek lu mu bëgg yàlla na ko yàlla may si barke si Ahmed Tidiane ndax def na yëpp def na surtout taalibe Cheikh def na yëpp yàlla nag moo xam nag li mu yéene rek yàlla na ko yàlla may si barke Cheikh. gis nañu nañ ko fii kër xalifa may na ko. ñu gën ci bu baax macha allah kontaan nañ bu baax loolu ndax mag yi yaakaar naa boobu ma ne kii da ngay ni taalibe Cheikh la gën a la gën a xóot te ñëpp yemle nag muy taalibe Cheikh muy murid muy tijaan kon yal na nu yàlla sàmm yàlla jàppal na jërëjëf yéen. ah kontaan nañ si baax ñu wax yàlla kontaan nañ si Macky Sall moom moom dañ koy sant bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla borom baax la. lu tax lu tax. Ah, li mu defal moo rëy nit bu la yëgee rek sant yàlla wax yàlla te ay sénégalais leen te boole nañu ne moo ñu bokk yilif te jàmbaar la wax dëgg yàlla si Tiwaawan ndax lu lu Tiwaawan kii mu ngi si loxoom kon ñu koy sant bu baax am ne seet si ñëw bi kontaan nañ ci bu baax a baax wax yàlla ñu ngi koy tatagal bu baax di ko sagal waaw moom borom baax la. ñoo bi waaw am na solo de. am na solo am na solo macha allah ndax mooy njiit kon ñoon la fi mu toll nii bu dara xewee Tiwaawoon mu def déplacement ñëw loolu lu baax la lu am solo tamit macha allah. bu weesoo loolu dañu pare dañu gis ni bi mu euh, ziare ba pare dafay nekk di wër xablu yu nii euh, xablu bu nekk mu dugg fa génn na léegi si xablu Serigne Babacar Sy bi ndax nga gisee geste bu mel noonu. loolu rafet la lu la ndax mooy ndax mooy borom borom bis borom bis bi waaw kooku bu wootee rek ñëpp war a bàyyi fi mu toll nii daw ñu wuyu si ko ndax mooy borom bis macha allah. Ah, waaw man waaw taalibe sëñ Babacar laa waaw. loolu gisee ñëw mag Sall bi. ah lu rafet la macha allah ndax sëñ Babacar su wootee rek kenn ku ne la nga jàpp da nga ko war a bàyyi ñu wisi ko ndax dëgg yàlla moom moo li ko waykat yi waxee daal naan xale yi judd si ginnaaw mbay te gis ñu mbay te koo ci wax mu naan la mbay ñun ñëpp ci ginnaawam lañ mbay rek lañ bëgg mbay rek lañ soob suñu yëpp mbay la waaw. kon allah kontaan ndax man Macky ah yow man Macky tax nga nekk Macky <laughs> ah kim àndal laa àndal Moustapha Diop maire Louga waaw yaay politique <laughs> déedéet dama ànd ak morom mooy sama maire ma ànd ak mais mais mais bu weesoo ñëwam bi dañu gis ne bi mu néewoon bi mu ziaree xalifa ba pare gis nañ mu dugg ci xablu yi xablu bu nekk benn par benn mu dem di ko ziar geste boobu noo ko gisee. kontaan si taw ziar moom ku fi ñëw wax dëgg yàlla boo bëggee lu baax da nga ziare ji ñaan sa soxla ndax ñi fa tëdd moo wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom la doomu xam ne tijaan nga bokk ci tarix Cheikh kontaan nañ ci ñëwam bi kontaan nañ ci ziar bi muy def wax dëgg yàlla kontaan baax a baax a baax a baax. mais est-ce que est-ce que luy gën a indi jàmm bokk na ci libéré euh, détenu yi mais également bàyyi Ousmane Sonko xëy na sax bàyyi ko mu bokk ci élection présidentielle. parce que booy xool moo fi nekk aussi te waxoo ci loolu tamit te lu a wax loo xamante ni mooy parce que li nga téye si ay bëri na macha allah te ñëpp xam nañ ñu demee koo xam dëgg yàlla te yàlla tax non xam ne ku tax dëgg ku dekk sa bàmmeel rek xam ne loolu lu ci ëpp loolu da cee laxasu politique moo si laxasu bon li gën a mer nag mooy jeunesse bu mer denc moo gën a bon ci dëkk te état na bàyyi xel dëgg war na bàyyi xel loolu jeunesse bu mer denc moo gën a garaaw jeunesse bi mer denc moo gën a garaaw bi bi mer di génn di manifester parce que après day jeex nañ baare parce que tamit aussi d' accord ku nekk ak ki nga bëgg waaye bul tey nit ngir adversaire politique parce que yooyu yëpp jaru ko Sénégal xamul la jàmm lañ xam quoi jàmm moo fi xaj boo génnee ci màggal yaa ngi ci gàmm boo génnee ci gàmm yaa ngi ci korité wala yaa ngi ci tabaski loolu lañ xam te saa su ne événement bu su ñëw yaa ngi dégg bàlle maaq balte àq bi tooyante bi kon xam nga loolu jàmm moo ko lal kon y a des problèmes yoo y xam ko ci au contraire dañu doon génn ci pays di naan Sénégal mooy pays de la di si jàmm mais léegi bu ñu ba ñenn commencé tuut war nañu faa suñu ko fi kër xam nga loolu. ah lu rafet la. macha allah mbay si man soo lim def man ànd naa ci. waaw macha allah rafet na moom. Ah, waa Macky nga wala waa ñan. man waa Sonko la. waa Sonko waaw. Ah. jamono bi waa Sonko nga waaye même Sonko dañu gis ni dañu ko dindi carrément ci liste électorale maanaam du am bokk ci élection yi di ñëw gis ah moom dañoo war a bàyyi ñëpp bokk rek ku yàlla jox réew mi ñu xam ne ñoo la ko jox mais bu seyoon Sonko Sonko day bokk yàlla jox ko mi ndax gis nañ fi mu toll nii li muy li muy incarné quoi li muy doxal tamit ñun Sénégal moom dañuy gis koo xam ne fi mu bu ñëwee rek fi mu toll doxal leen rek pour yee askan wi rek ñun dañ ci ànd moom ma Sall nag nekkoon na fi def na li mu a def mais nag ayam jeex na kon keneen keneen kii ñëw rek na na yeggale chantier Macky Sall doon def rek Sénégal jëm kanam ñu war a bàyyi ñëpp bokk waaw ñëpp bokk daal moom mooy li gën incha allah rek mbokk yi di Sans Limites comme ni ngeen ko gisee sama ginnaaw président Macky Sall daanaka dafa génn rek mbooloom yëpp taalibe daw daal di waaxu eh, mais gis nañ Abdou également donc euh, voilà gis nañ également Serigne Mansour Sy Djamil mais gis nañ ko également ci biir moom mi nga xamante ni daanaka mën nañu wax ni moom moo ko dalal Euh, fii ci kër gi ndénkaan yi nga xamante ni daal nañ ko fii dénk président Macky Sall nag bala moo ñibbi ci xibaar euh, yi nekk fii yëpp maanaam xam li fi nekk yëpp daf leen di visiter balaa muy ñibbi donc mu ngi noonu lépp li nga xamante ne en am na fii ci Tivaouane ñu Sans Limites yi dañ leen koy jox mbokk taalibe yaa ngi noonu ku ci nekk di waaxu ngir jàkkamte dem euh, ziar nga xamante ni moom mooy Serigne Babacar Sy fii mu tëdd ci sama ginnaaw di xablu bi